rek bo ci nekké no ci gëna yagg itam ngay gën nga koy gëna maîtriser gën ci di ci gëna am expérience gis nga sax man ak Omar Youm daan nañu ciokassé wante fi ki mais Omar Youm actuellement man gisuma luñ ko mëna wax mom mu ngi japp njaamuram liko président liko président di doyé mu ne ci wétam mu ngi ko koy ligéyal li nga xamné mom la mom la wara liguey dans dans sa commune fu mu nekk Thiadiaye comme maire mu ngi koy liggéey dans le département de Mbour fi nga xamné comme ça moy capitale bi fi nga xamné moy yor plus de 45 pour bi moy euh, commune de Mbour ñom ñoo am sen problème bu sen seen biir mais kenn dëkk ci Omar euh du fait que nak kon man ma ngi ne man mën naa mu ngi liguey li ma koy ñaax rek moy ñom responsable yow Omar Youm Serigne Gueye madame Sibi Mamour Sallé ñom ñep nañu wo ñep ñu taxaw fi ñu dan taxaw ku nek ambition boo am nga denc ko alors ba présidentielle yu weesu bu boobaa ku ne indi sa ambition. kon Omar Youm poste bi nga xamante ne mooy poste coordonnateur te dénk bi ko président dénk département bu Mbour jàpp nga ni moo ngi koy doxal correctement. mu ngi koy doxal mu ngi koy doxal li ko firnde mooy lu yàggul rek Omar Youm ci boppam jamono nekkoon nañu dëgg mais woo na ma woo na ma ne ma El Hadj man de comme par exemple dafa am lu ma bëgg ma ne ko loolu lan la mon ami mu ne ma dama bëgg ñëpp nekk benn ah foofu comme par exemple même monsieur le maire soxla nañ ko mais tant que comme am nga relation avons mom waxtan na rek parce que nous nga né pas ñun man président gagné dès le premier tour parce que président li ñu gagné composant mais man Omar tant que composant bu man la yalla natul ñu denkan département bi mais dégg mu effectivement Omar est en train de faire un excellent travail.